dafa ñëw njàpp ndal mm-hmm. bi mu daan santaane loolu mm-hmm. takkusaani suuf mm-hmm. mu toog ci njoowaan gi naaju bukki nga xam ngi jant baa ngi bëgg a so mu tibblu ca cere ja ca ca battu ba def ca ñeex ak jëmam ju tedd ja di ko jëfandikoo di seet li gone yi lekk lu mu doon bi mu ci noppee ca la joxe ne bisub gaawu nañuy togg laax boo xam ne day am day am tiir mm-hmm. bu ci suba saa ca dibéer ja ñu togg cere ju am ñeexum geccax ak ñebbe man ak sëb mm-hmm. ak yemi war a àndal ak ak ak ak ak euh, gerte mm-hmm. bu ci suba saa di altine nañ togg ndawal te togg ko toggin woo xam ne day doon toggin wuy jariñ gone yi bu ca suba saa di talaata nañ def ceebu keccax bu ca àllarba jaa nañ def ñeex mu neex te def laax bañ daan def bi mu ko yóbboo ba semaine bi mag docteur Fall ba mu fa ñëwee bi ñu ko waxee dafa jooy ne sëñ Sadio li muy wax nii est ce que xam ngeen te sëñ sëñ ba mu noppee dana sa li ma wax ne bu ñu ko defee ni ma ko defee ni ma ko waxee loolu ñuy wax mbémpéen dootu leen dal ak miiw kàttan nga bu doon léegi mooy animé rek. dañ nekk àgg ci di miir ak di féef. te it seen yaram yi du du ñàkk deret bay àgg ci di furi yooyu mu wax lépp nee na mi ngi ci yii mu wax ne buñ ko buñ ko toggee noonu la. ba mu demee docteur Fall ba mu ko waxee dafa jooy ne noonu ñu def médecine te yàgg ci lool ni ko sëñ Saliou indee ñun xam nañ ne benn bu ne nii la waaye mënuñu koo composé nii. nga soxla lépp ñam ñam wi li ci soxla lépp da koy composé ne nañ ko defee nii wala sëm ñi rek sëm ñi li mu amee njëriñ waaw nee na daana wax gone guy miir nii sa la sa ba ci gën a gaaw sa fer la alxadid tiir tiir tiir day dindi mbémpén ak sax ku ñàkk deret ak waaw lépp da koy faj wàllu médecine bi mm-hmm. man mii maa amoon fii ab taasoo ci sama bët bi mm-hmm. njurul la woon mm-hmm. ma ñëw di ko wax ci sëñ bi waaye nag bët bi mënoo koo neexut a gis mm-hmm. bi sëñ bi ne tëll ne mënum doon ma ne ko man sama bët bi moo am xonq-xonq mu ne ma ma xool ma xool ay yoon yoon mu ne mu mel ne gisu ko mais bi ma téenee mu ne ma ah gis naa ko mm-hmm. daal di ma ne da ñëw dem te ñay faj ma daal di waaxu mu ne ma ñëwal kaay mu ñëw mu ne ma kañuy wax aañ li tàmbalee fii jëm nii lay faj jëkk ñuy wax alis ngay dem mooy faj li tàmbali fii jëm fii <laughs> nii la ko def ci loxo bi tedd bañ ma jaxase mu ne ma kaay ne ma mu ne ma kañuy wax añ li tàmbalee fii jëm nii lay faj da ngay dem te kañuy wax anis laajte ko kooku li tàmbalee fii jëm nii lay faj. mooy raw rek. <laughs> daana wax it ne salaaw docteur yëpp day ñoo ñoo bokk fu ñu génne li leen wutale mooy yi ñuy faje ñii dañ koo ëppale ñii. ba may nekk daara ji yàlla ak mu ne docteur yëpp bokk fu ñu génne lii nu wut la ci pañ mi mooy seen bagage yi maanaam matériel yi moo wuute nuñ ko ëpp ëppalantee waaye ñoo bokk xam-xam wallaay bàkke mu wax ko may ne ci daara ji di ko dégg ba yàlla sama borom dogal NDS muy boo demee université fi ñuy génnee docteur yi ñu invité ma fa ab conférence ci doo des gens yi ñu doon mayee deret ci màggal gi ma gis fa docteur boo xam ne moo yore sump ga sump ga ma dee na sump ga ma ne ko yow foo génnee mu ne ma fii ma <laughs> si seen mag ma <laughs> ci gën a yéem man ba mu koy wax naa naa ah waaye docteur ñu bëgg fu ñuy gént bokk ni ñu faje mu ne sa daal ñoom ñëpp dañoo bokk luñ jàng waaye nag yi ñuy yor di faje moo wuute foofu la yemoon moom ba benn ca daara ji ma ñëw ba NDS man dem man dugg université nga xam ne dañ lay wan nit kuñ siddéeg yëpp ma fekk fa benn docteur man ko waaye yow mii yaa nekkul ci sump ga ca Madiana mu ne ma waaw ma ne fii loo fi wut mu ne man fii laa génne te docteur boobu ab ab ab kii la woon taabal dong la amoon ak ab bank.